koy ñaawlu. waaw xam nga euh, li ma ciy retenir mooy la mise en danger de centaines d'emplois euh, ci jamono joo xamee ni euh, président de la république dafa woote ngir ñu gën a jàppale ndaw ñi ci seen xëy ndax gis nañu ni dafa yëkkatoon kàddu ne ni comprendre na ndaw ñi bi coow li amee ci weeru mars bi ñu weesu Euh, mbur euh, xamle daal ni situation yi nga xamee ne ndaw ñi ñu ngi koy dund ci Sénégal euh, metti na ko te faw ñu mën a lijjanti pour ñu mën a am xëy waaye bu fekkee ni loolu da nga ko wax à te li nga xamee ni moom mooy benn conseil présidentiel ci lu jëm ci wàllu xëyu ndaw ñi nga dem ba ci biir ñu gis ni kenn wala benn ci say service yu bokk ci administration sénégalaise mu ngi bunduxataal benn këru liggéeykaay boo xam ne ay ndaw ñoo fi nekk euh, day xaw a paradoxal euh, mise en danger nag euh, am na ci ndax nit koo xamee ni tout travail mérite salaire comme on di le salaire nekkul loo xamee ni da koy yalwaan dafa nekk loo xamee ni obligation la bu fekkee ni da nga yore këru liggéeykaay di employé ay nit waaye obligation bi mu ngi lalu ci bu fekkee ne sa compte yi nga yore nguur gi bu ko tëjul di nga mën a def li ñuy woowee fay say salaire waaye bu ñu wañee sa loxo euh, ba fi nga war a jëlee salaire boobu ngir séddale ko say employé mënoo ko am ndax tëj nañu ko wala mu am ay restrictions ça pose problème abaa mu ngi koy wax léegi mm-hmm. euh, écoles yi di war a ubbi euh, le 14 mais on sait qu'au Sénégal par exemple Mambay Sànq mu ngi ci wàllu privatisation de l'école ñu bari léegi dañoo dem ba di jël seeni doom di leen dugal ci école privée école privée mm-hmm. on sait que ce sont des charges euh, c'est également euh, mm-hmm. li ñuy woowee ay euh, Euh, fournitures scolaires yi nga war a jënd. Euh, loolee yëpp nga war ko def avant école di bi xam nga yaa ngi wax sànq les bailleurs bailleurs yi sax di nga ci gis yoo xamee ne bu ñuy seetaan seen TV wala ñuy déglu si FM dañ naan ñii de du ma leen laaj mois bi. parce que situation bi waaw franchement il faut euh, a beaucoup ne am nañu compréhension. boobu parce qu'ils se bon ñii je sais leur situation mais école bi ngay yóbbu sa doom ñoom xalaatuñu ndax am nga compréhension boobu duñ ko am parce que ñoom tamit déjà sax dafa dul rafet yow nga yóbbu sa doom école. déjà euh, ay moroomam jot seeni fourniture yëpp. Oh, yow nga nekk fa di taaba taaba di wut benn cahier ñaari cahier ñu laaj la ay livres mënoo fexe ba jënd livres yooyu parce que tout simplement sa salaire jotoo ci. Mhm. déjà que au Sénégal on sait que muy privé muy public le salaire pratiquement ne sert pas à grand chose le salaire ne suffit pas pour dundal ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, muy yow ak sa njaboot. yaa ngi koy wax. dina am loo xam c'est juste pour gérer quelques priorités. non c'est juste pour régler waaw euh, c'est juste pour régler quelques quelques priorités wala quelques détails waaye sa salaire lu mu bëri bëri bëri bëri charge yi nekk sa kanam moom moo koy ëpp très souvent te du question charge da nga koy foyee du question da nga jël xaalis bi foyee ko mais c'est parce que dafa am foo ko war a dugal loo xam ne farata la ndax yóbbu sa doom école farata la. Mm. Euh, mu feebar nga mën ko faj farata la sa soxna wala sa borom kër euh, bu fekkee ni dafa am ay jafe quotidienne war la du lu lay teggeeku quelque que soit alpha nga am salaire nga bañ a am salaire am na ñoo xamee ni tey dañ naan salarié mais y a des y a sénégalais yoo xamee ni am ñu salaire parce que mm. nekkuñu ci administration wala nekkuñu ci fonction euh, nekkuñu ci euh, euh, privé ñu ngi taaba taaba ñii ngi jënd ki jaay waaye lañuy ñuy fortaatu ak néew dugaluñu ko ci ay fo dañ koy mm-hmm. dugal ci lan ci Euh, yoreel li nga xam ni moom mooy seen njaboot donc vraiment c'est un appel que euh, je me permets de lancer à l'endroit de d'abord du président de la République mais ensuite de l'administration bi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu woowu nañu xool ci waxuma Bougane Gueye Dany parce que c'est un homme politique nga ne non parce que homme politique la mu ngi xeex euh, nguur gi dama koy wutal ay gàllankoor mais nañu xool ci njabootam bi nga xamee ni ñoom ñoo fiy liggéey ak seen i njaboot ñi nga xamee ni ñoo fi nekk euh, dindi li nga xamee ne moom mooy restriction sur les comptes yooyu di blocage compte Sen TV mhm. leneen lu ñuy lijjanti ñu lijjanti ko mhm. je pense que c'est le président du SADEPS qui disait Mamadou Ibra que mhm. euh, dañu war bind bind nañu bind nañu comme ni ko ñeneen ñëpp defee mais ba ñu bindee. bind nañu mais dañoo yéex a bind amaana est que la délai bi ba waaw délai boo xamee ne yow dañu la ne ñu ngi au mois de d'octobre. Mhm. de l'an deux ñu ne la euh, li nga xam ne moom mooy amnistie fiscale euh, dafa couvrir na ba fin euh, année bi ñu nekk di maanaam weeru décembre. avant loolu ñu ne la amnistie bi 2017 la woon ba 2020. 2017 ba 2020 lépp loo ci amel fisc bindal xam le ni amel naa fisc 100 millions ñu faase sa boobu le bor di euh, maanaam da euh, dañuy effacer lépp ni ko amnistie di waxee mhm. amnistie la boo xamee ni lépp loo xamee ni ameloon nga ko nit dañ koy dañ koy euh, effacer mais nañu dem ci loolu te nañu baral jéego yi. Mhm. ndax euh, am nañu ko soxla. alors euh, mu nekk euh, Mambay ba tey ci à la une mhm. du tribune moo ko titré mu nekk benn persistance peut-être qui ne se justifie pa mhm. ba tax na ñi ngi woote waa kër diine yi noonu la ah. parce que ñu ñu ñëw jàpp ci ci mbir mi bu buñ ci mënee wax. bien sûr surtout surtout fii ci réewum Sénégal xam nga nit yu sunu xalif yi. Euh, dañ am doole ci ci réew mi te dañ leen di déglu heureusement que dañ leen di déglu te bu ñu sàkk bu ñu ñaanee ñu may leen te bu ñu waxee ñu déglu leen euh, seen njaboot a fi nekk ah, parce que buñ ko fàttee sànq yaa ngi wax salaire xam nga salaire fii ci Sénégal day jaar sa loxo rek dem mm-hmm. ndax euh, bor la booy fay boutique bi euh, boutique bi nekk si koñ bi ubbil na la carnet fa ngay jëlee euh, nga dem si l'école ba mi ngi toog di xaar euh, facture courant ndox ñëpp ñu ngi toog di xaar location bi waxi noppi feebar faju waxi noppi donc salaire bi du toog sa loxo. boo amul leneen lu nga xam ne mën nga fa lijjantee salaire bi day jaar sa loxo rek dem rawatina ku nekk des médias ñëpp xam nañ ko dañuy foog ne manqué woo dara. Mm-hmm. ku nekk des médias. fii ci Sénégal ñëpp xam ne. dañ naan kii non ku nekk en général sax si support pour ñoom. voilà mais mais des médias daf cee parce que des médias dafay maye. <laughs> des médias dafay maye ci biti des médias jàppale doomu adama yi mm-hmm. donc yow mi fi nekk dañuy foog ne gis nga bi ñuy maye xaru tabaski ñaata appel nga jot ñu ne la may ñu si xar yi man ñaata appel laa jot ñu naa man may ñu may ñu xam ñu ne yow maye woo xar yi dañuy foog ne manqué woo dara alors que ne. liggéeykat nga salaire nga fi am du leneen. Mm-hmm. sa salaire bi jotee boo ko jotee daal di koy euh, séddale ñu ngi ko war a ni ko Birahim waxee dañ ne bind leen feex décembre ngeen bind ñu ngeen bokk si ñu ñuy jéggal euh, euh, euh, seen impôts wala fisc yi bind nañu dugal nañu jéggal nañ leen am jéggalu lu mu ci manti